program kutule natale e ka health link health link mu program ya lonko ning molbe kachala jata kende ya karola health link every tuesday at 7 p.m. on QTV repeats on sunday at 6 p.m. health link the platform that puts your health and well-being first the health clinic for healthy choices Good evening, dear viewers, and welcome once again to your health program, Health Link, brought to you here on the QTV uh, studios by your friend Dr. Abu Bakar Jah and uh, Mariama Sane, Sister Mariama Sane. We're very happy to have you uh, back in here today. Um, and as you know, um, uh, we were um, uh, discussing about health um, since we started. I think this is our third program, Mariama. And um, today uh, we are here back in the studios. Uh, but if you look down on this table, I don't think these are the normal uh, things that we use um, as uh, doctors and nurses uh, to treat uh, people, um, uh, but they are everyday material that you can have anywhere. We're walking in the street. In fact, this, this, this thing here um, that I am showing, I found it on the way coming up um, in the stairs. Um, and I think this one, Mariama, you are the one who brought it in here. It's just a stick that you can find anywhere. Uh, this is some uh, water um, uh, and and this is just a headscarf which I decided to take uh, from home when I was coming uh, and you you have a headscarf on you today um, and uh, we have a piece of soap here and um, some, some curtains that I just cut off uh, when I was on the way. And they look like very simple um, items. Uh, but uh, I can tell you that these things actually uh, can save lives. Uh, you don't need uh, all these gadgets that we have in the hospital and all these expensive materials sometimes to save life in an emergency situation. And an emergency situation is very useful to know some of these. So today we are basically uh, going to talk about uh, emergencies mariyama um, Mariama um, just in wolof uh, mbokk yi ñu ngi leen a fii nii ci seen programme bi nga xam ne moom la ñu ooyee uh, Health Link uh, dafa mel ni rek lopitaan la boo xam ne dañoo waxtaan ak yéen ci seen wirgu yaram um, tey nag ñu ngi waati fii nii ak yéen um, soo leen xoolee taabul bii nii ñu ne lopitaan la waaye yi nii ngeen a gis fii nii nekkut jumtukaay yoo xam ne Euh, moom lañ dee di jëfandikoo euh, ci lopitaan euh, lii nii ndox la ndox boo xam ne foo foo munti toll ci Gambia léegi foog naa ne Gambia amuñ ñàkkuñ ndox ndox bi bëri na biir Gambia bii nii dafa mel ni carton la rek nii Euh, boo xam ne bu ma doon ñëw tey ci escalier yi laa ko laa ko laa rek ma ne xaaral ma indiwaale ko euh, lu mel nii nii xam naa di ngeen ko gis si yoon yi fu nekk bii dafa mel ni musóor la rek bu maa jógee kër moom laa indi euh, lii saabu la foog naa ne kenn ñàkkut saabu li banta la boo xam ne rek soo demoon ci tali bi léegi nii pour ut banta bu mel nii du du du jafe lii ay carton la carton yaa ngi fees del ci ci ci ci ci ci yoon yi lu ma bëggoon a wane rek mooy ne yéenay doo dee soxla ay jumtukaay yoo xam ne jënda mu cher euh, pour mun dimbale nit euh, si si time boo xam ne am na soxla time yi accident wala time yi problème euh, yii nii yëpp jumtukaay la yoo xam ne foo dem rek di nga ko fekka te mun naa sowe nit ci time boo xam ne soxla na ku ko sowee ci lu gaaw a gaaw a gaaw balaa moo égal lopitaan so tey ñoo waxtaanee rek ci suñ programme bi mooy mbir yoo xam ne daf dee dal nit tafaar yoo xam ne dafaa dal nit te su xewee ñu ko fekkee ak borom kum dal naka la moo def ba nga xam ne dina mun a euh, sowe boppam ci yi nga xam ne mu ngi ko jege nekkul loo xam ne sori na ko loo xam ne rek jege na ko dina ko mën a use dinañ leen wan ay mbir yoo xam ne dina demee noonu. asalaamaaleykum mbaade Gambiankool mbaal konton na kabo QTV télé bu mbaato aldimma mariama sane anin docteur bafon docteur aboubacar dia wolle baale jang komin dalitala ñamin lokum o lokum ka ka health link programme o natale komin ka fo ñamin drong health link mun no leti telo to jam pour ka banko dingol karandi jata kende abunda bunda karola alkamin tablo kam kan dol wal mo carton kuntolete kabringa fo ka sele la nyin tombong nyin karton kunto mi alon ka soto be soda so ne ala dawada da handi ka tambi silo kan rong isa soto nol nyin dong mutasalo ti mi alon ko ngajio ka kono le gambia sain ba tembo min to jio soto man kala ya mol bulu isa tamanu dawada da dorong ye jio soto je nyin dong wo muti ko le ti ko mi alon ka fo ngale abo so ko kono kana ti nanjang nyin mu do ko le ti do ko kunto fo ngale ya kati nga na ti nanjang safuno anin nyin karton kunto ganyin yitandi allah jang pour ka yitandi ko doron mol ɗoɓe je a commin a dunta accident o kono wawi accident o soto silo kan ka mol karandi ko jannin aɓe futala lopitanoto kuwol dol bi jelen sa amma koy no mi yalon kon sala uh, niyo niyo kanandi pour akana akana dum mantoro kono so nyin kar nyim bagasol minin aliye jatengi so to sone yata wala tina ngaye nati nam pour ka banko dingol karandi e be min kala ni ngatara mo blata accident to mba mo blata problem kono mi yalon ko janding abe futala l'hôpital but janding jata kende am de mar lal be ay sotiyale la nse ma koy no wala doctor thank you very much um, so uh, we will not waste much time. As usual in this program, we want to make it a little bit spicy and we want people to understand uh, what is uh, going on and uh, we therefore bring in some scenarios. Some actors come in and act some scenarios that are very familiar with us but that make it very easy for people to understand uh, what we are talking about. So please watch this next scenario and then as soon as we come back from it we will discuss it uh, mbokk yi lu ñoo wax rek mooy ne léegi nii comme niñ ko dee bugg di defee rek duñ dee ñëw fii nii rek toog waxtaanaa la yéen dinañ def ay théâtre yu ndaw yoo xam ne dinañ leen wan mbir mi naka la demee ni yi gën koo mun a understand uh, am na théâtre bu ndaw boo xam ne mu ngay ñëw si léegi nii seetaan leen ko soo leen paree ñëw dinañ waxtaan ak yéen ci loolu mbaɗigol aka min foti ndoro walom commin mannajan dorom pour ka diyamo pour ka kacake niyaje lafta faham ro ke wala tinna tiata rol dundila kacakono pour mol sa faham ila ro kam min kaca pour se fangol faŋol makoyno al thank you waaw ok boobu baax na léegi isil isil beneen isil beneen plate waaw waaw bu ndaw bu ndaw boobu waaw waaw. booy xam nga. waaw waaw da nga ko position bu baax. ok. ay ay ay ay ay ay sori sori sori dafa gaañoo booy. non non bu fa def ndox non bu fa def ndox bu fa def ndox booy. wax dëgg. waaw. ah non da nga foog jarul liquide booy. waaw jarul liquide nga ah, waaye atelier waaye ñun suñ dëkka daa boo ah. soo gaañu woon da ngaa yem puupi puupi nag da ngay dem liggéey waaye nañ fa def liquide bi booy xaaral ñu defal ko fa soo ko defee du gaaw a wér waaye puupi nag soo ko fa defee ñun suñ dëkka ah, laa ñaaxa soo jëlee puupi nag nga def ko fa rek pare na ay fan rek non jarul lépp dem lopitaan sax So, we have all seen it. Um, it's very interesting, and we thank all the actors that were involved. I think it took a lot of uh, time to, to, to, set this up, but we thank everybody who was involved in this, and very interesting uh, scene indeed. Uh, and uh, what is has shown is uh, at a place of work, or even at home, or on the road, injuries can occur people can get injuries. You can fall down from a height and, and bruise yourself. Um, you can you can you can you can break something when you fall down. Uh, you can be working and then your working tools. You can get an injury. You can get a cut. Uh, at home, uh, our mothers, our sisters, our wives are cooking and they can cut themselves with a knife. When this happens, what do we do? And uh, there is a lot of information out there, and people tell people lots of things. So, people say oh do not do this you do that you will get better I did that in the last time um, and, and, and I will get better and that is what uh, this scenario has shown. And as you can see uh, somebody gets injured in the workplace and they tell him that somebody is advising him take uh, this dirty oil you know this engine oil which is already dirty and has a lot of problems with it put it there don't put uh, the normal thing that is supposed to be put and people have this uh, feeling that using water can, can spoil a wound, can cause a wound to get worse. Um, unfortunately, that is not true. Water, clean water like this, is really very, very important. In fact, if you look at the uses of water, you will not believe it. Our own body, more than 70% of our body, if you really calculate the amount of water in it, it's more than 70%. Also, on the earth, about that amount, the whole earth, if you look at it, is covered by water. Two thirds or more of the earth, I'm not a geographist, but I know that most of the earth is covered by water. So, water, usually there are some places where there is uh, uh, drought and there's no water, but most places like the Gambia, there's water available and there's clean water available. And clean water is very important. God has created everything that is, that is, that is, that is alive from water. And uh, therefore, water has a lot of healing properties. Drinking enough water is important. But also having water at home, when you get an injury, water will not make it worse. People think it is going to make it worse, but it will not make it worse. In fact, if you come to the hospital and the wound is dirty, what we use is water and some, some form of detergent. And that is why I, I brought this soap. So if I have an injury, I recently had an injury. That's why I thought of this, this, this program. I recently had an accident and had some injuries on my body and I was in a very remote area and I asked the people, I need some water to clean these injuries. And everybody was surprised. Why do you want to put water there? You shouldn't put water there. And then I thought of it and I said, yes, we must make a program on this. Uh, mbokk yi uh, lu ñu doon wax rek mooy seetaan ngeen uh, um, théâtre bu ndaw bi ni nga xam ne moom def lu ama am solo moo ñëw foofu noonu mooy ne um, nit mu ngi liggéey ci place liggéeyukaayam gaañu um, gaañu nag mun naa xew fu nekk euh, si sa place si liggéeyukaay sooy dem ci tali bi nit tampon la nga daanu gaañu euh, suñ yaay yeeg suñ doo euh, suñ suñ suñ suñ rakka yeeg suñ jabar yëpp ñu ngi tooga si biir kër gi ñu ngi use paaka paaka bi mun na leen a dog ñu am gaañu gaañu soo gaañu gaañu boobu nag soo ko amee nooy def lan nga war a def lu nit yi dee def bari na lu nit yi dee wax ne moom nga war a def bari na. waaye lu ñu bëgg wane fii nii ci programme bi rek mooy lu njëkkaloo war a def soo amee gaañu mooy nga raxas ko ak ndox lu tax ma indi lii nii tey mooy ne man sama boppa dama amoon gaañu gaañu dama amoon accident bu ndaw am gaañu gaañu ci foo xam ne fu sori la balaa maa égal lopitaan dina dina dina yaaga ma laajte ni yi ne dama soxla ndox pour raxas gaañu gaañu yi nit yi ne ma non non non bu ci def ndox. soo ma si ma leen bi demee ba expliqué nag gars yi understand nañ ne ndekete kii nii docteur la moom ci boppam gaañu rek man suma man suma liggéey ci docteur yaa man euh, opérekat la mooy gaañu gaañu. man gaañ si gaañu laay liggéey moom laay moom moom laay dundee euh, ma ne leen nag lii nii ndox dafa baax si gaañu soo ko seetloo ndox lañu yàlla liggéeyee suñu yaram bi yëpp soo ko jëloon téeméer euh, soo ko soo ko soo ko doon téeméer juróom-ñaar fukk yi yëpp ndox la. suñ àdduna si itam ñu dëkka soo ko soo ko cegoon yëpp ndox la soo ndox lu ama am solo la euh, te ñu fu bëri ñàkku fa euh, Gambia fii moom yàlla may nañu ba nga xam ne ndox nekkut lu ñàkk biir Gambia foo dugga rek ndoxang fi ndax am ndox sax moo ñu moo moo ñu ngi am suñ river bi ñu ngi am foo foo gas rek balaa ngaa egg ay mètre gis ndox euh, soo ndox moom nekkul loo xam ne problème la fii nii euh, ndox lu ama am solo la amut benn gaañu boo xam ne soo ko gaañoo nga def si ndox dina ko gën a yaaxa saakatuma su nekkee ne ndox bu set la soo gaañu boo munti gaañu the first thing looy def balaa dem lopitaan mooy nga raxas ko bem set ak ndox nga raxas ko bem set raxas boobu noonu lu bëri la dee def dina génne tilim bi dina tax gaañu bi gën a mun a teel a wér dina tax soo demee ci loppitaan bi du waste time balaa ngaa egg ci lopitaan bi parce que euh, fu ñu toll nii yëpp fu ñoo nokki nii yëpp ay ay bactéries moo fi nekk lu ñoo ooyee bactéries ay viruses yooyu noonu moo nekk ci biir environnement bi so euh, yaram bi der bi lu tax mu nekk fii nii mooy pour mu protect ñu. mooy pour nga xam ne dara du génn ci biti ñëw dugga ci suñ biir yaram bi soo amee gaañu gaañu nag protection boobu jeex na amatul so lu nekk ci environment yi dina ci mën a dugga soo raxas ko noonu dina tax dara du mun a nekka dara du dugga si wala su lu si doon bugg a dugga nga génnee ko euh, loolu noonu yëpp lu ama am important la waaye lu ñu leen doon wan fii nii rek mooy amul gaañu boo xam ne yaa ngi ko gaañu soo si defee ndox mu gën koo yaaxa déedéet da nga raxas ba set wécc soo amee saabu sax boo cee def nga raxasaale ko nga raxas ko ba set wécc su nekkee loo xam ne dafa war a dem ci lopitaan nga door koo yóbbu lopitaan su nekkee loo xam mun nga koo defee kër nga def ci plasta wala nga def ci nangam nga defal ko wala su nekkee yaa ngi am ink nga def fa ink loolu noonu yëpp baax na waaye balaa nga def lool noonu yëpp na nga ko raxas ba mu set wécc foog naa loolu lañ bëggoon a wane ci lii mbaɗigol aliyet yataru min jeteng ka wala hadamadiŋo wo a barama dulasit keno dawoɗati le ise taratama kannole ye boyi ye barama ise taratama kannole ye moto ye fadi ye barama ise tara commin suwo kono faŋ mbaali niŋ niŋ dimbayal min be niŋa tara yeɓe dookuwo la faŋ ise faŋol kuntunole nka min aka min foten doroŋ a lafita moolu ye a kalamta ko ni ye faŋo barama wara i baramata dawo da a ye tara dawo data doroŋ jiyo niŋ safuno i ñanta ka waleta foloo yaa ko jiyo kummayata baake le mol yamira ko komin nim baramo ketela doron ye jio jiyo keje doron waka baramo lafale mba aka baramo tiñale docteur ka min foten doron ate fongo watti tambita num ay baramo soto say nga be damin to wodni lopitano jam fata nyola bakele ay mol minil beje ay nyenin ka fa isa jio soto nole malon ka telephone mu docteur jati i kay ko hani kana jio jiyo keje bar kabri nga ni sita ya foy ko kom ni nga ke keje nga baramo ta nga bar ay jiyo ta nga baramo ku abe mako ila nyinni nyinni nyinella otale wakilta jiyo diala jio kuma yata bakele adunga soto so ne yata le say mbetemo mo min to banko kan bara mo tata ni ya ku doron i e ka min folo ku je wamu nole ti abe nole bondi la je ani nga tara kura mesen bije mi ya lon ko abe bara mo kan abe o fana be bondi la le nga jiyota ni safuno bije nga safuno ta nga ku ninga a tara funtoo bi jee nga ŋa mini nga la fo janniŋ mbe futala la lopitaanoo to jio kuma ya batale pour bara moto aka min miŋ ndorom bala jato fo jaatoo faŋo jube a a bal a a a tang woro ta worowo wala wo be mu jolati alay ti alla ye hadamadiŋo daawo le ñaama aduŋ niŋ ye duniyaa fanaŋ a jama ba be be be minindiŋ jiyol la wala ka wala ya tina a tinna pour moolu se a ko jio kuma ya bata na jata bala jato kono nin na jata kende ya le akoy min miŋ bala jato fenne bije ñin kam min jaja ñin bala wala bala jato kubeer aɗum wala kan tanka jankarol la baramo bala o tata doron fo fato wottota je min bi je doron fewo fe yalon ka keta jankaroti asa bala jato asa dunno bala jato konole wala tinna ninga taram baramata yen tara dawo dato doron nga tara nga kata nga jiyota nga ku fo jannimbe futala lopitan ako bari ink be ya keje ya fita ya ya keje wara plasta be ya keje bari jiyo kuma batale nkana mira ko doron nin baramo kete jiyo keje o ba baramo tinyalal mbata be baramo kafulal o baramo ko ila ba kala pour a, kenda ya fongo se sone ya janni be futala docteur wodo janni be fewo fen sotala ne e ba kala je docteur thank you very much lu ma bëgg wax rek moy actually dunda ndox moy dunda ndox mooy dunda uh, parce que uh, ndox lum mu amal njëriñ dafa bëri foog naa dinañ fi indi programme ci kanam rek mbiri ndox rek lanyo ñoo lan mooy ndox lan la ndox dee def ci yaram uh, lan mooy njëriñi ndox Ehm, ak ak yooyu noonu yëpp am na nag ay feebar yoo xam ne ci ndox la dee jaar tam yooyu tam dinañ ci dugga waaye ndox mbiri ndox lu ama am solo la waaye daal si gàttal lu ma wax tey mooy ne gaañu gaañu bu munti doon lu la munti gaañ nga njëkk a koo raxasa ndox du yàq dafa defal foog na is important nga wax gaa yi tam loolu noonu ako coming abe eh, akamin fotendoro jiyo kumaya tabakele jiyo kuma kumaya mbe wo kacha dole na tela miya lon ko doro nga jiyo kacha akumaya ta nyamin aka aka mako iro ke nyamin jata kende akono ani na dunia balu kono ko mbe wo kacha lale bari mbe uh, ah, programo le set la wo nga wo kacha puru mol sa faham bake bara akamin fotendoro bara mo kete nyawo nya ayetara dawo da doron jiyo kumaya batele puru yata ya kumasi ka kuna la janin kubekele The other problem that uh, that can be an emergency situation that we all can can can can encounter is burns. You know, and and now that the cold season is coming, in fact, in in the hospitals, we see more burns during the cold season. The reason is that people are heating water to cool, uh, to, to, to, to, to, take a bath because many people cannot take bath with cold water during this uh, cold season. Um, and uh, children are around in the house and the way they boil the water, children can fall down on the water. The, even the adults that are boiling the water, sometimes they can have accidents and get uh, burnt uh, with the water. So burns are very important and are very common. And this next scene uh, that you're going to see BBC is to talk about Burns so uh, let us let us let us watch this scene uh, mbokk yi uh, lu ñu lu ñoo wax rek mooy ne beneen mbir moo xam ne dina dee mun a xew ci ci ci ci askan bi mooy laka-laka parce que euh, laka bëri na ñoo xam ne euh, ñu ngay ñu ngay def ñu ngay jëflante safara su nekké light amut sondel yi nit tal ngi sondel ay sondel sondel mun naa daanu feena nit lakasi eh, nit yaa ngi baxal ndox legui ni sakatuma ci sedda bi amna ñu bari ño xam duñ dé munee sango ndox bu sedda man nak ndox bu la dé sango nekku né mo bax wala mo bon eh, ndox bo munti sango rek baxna sango rek mo gën loolu tam bokka da ci ndox du du nonu because ñu ngay wax mbiri ndox ni euh eh, <laughs> ñaaka sango ñetti fan ñenenti fan lool nak du suñu aada Gambia waaye amna ño ñoo dañ ko dé def yëg lool nonu lool nonu amut lool da fa indi febar rek léegi nii ci sedda bii nii lu ñu bëgg a wax rek mooy ne nit yaa ngee sangoo ndox bu tànga soo ñu ngee baxal ndox time bii lañ dee gën a gis laka-laka ci xale parce que euh, fu ñu dee lakk fu ñu dee tàngalee ndox bi yenn yi duy safe so ñu wax yaay yi rek ñu uytu sooy tàngal ndox wala di togga wala di def dara nga nga make sure ne yaa ngi ko def fu safe foo xam ne xale du fa mun a dem di di di gaañ boppam parce que wax digga yàlla ci lopitaan yi time bii lañ dee gën a gis ay lakka-lakka ñu seetaan siin bii ni nga xam ne mu ñoo wan eh, mbiri lakka-lakka naka la demee ak eh, naka la si dee nit yi dee defee mbaɗigol jano wonɓe tembo min to sayin sako ɓe dunta sumayale kono banko kan jano kasiyan ka nka min je ah, ñin wato kasiyale mol be jiol kandila dolɓe je kuno o katale mol ye kandiyol mala wol be ka kulati sabu mi alon ko jano ka bojele mbe wululal ya marla ise hakkilo tubake docteur kam min foten doro ye hakilo tubake e ka jiyol fajindi damin ibe jiyol kandindila damin pour moli ye mako e fangol ko wala nga kata akeket du mi alon ko dindingol te tarala noje dindingol te sutiyala no wala amanke dindingol fanan male kajani kebal fanan kajani le nkaje ko coming jano na keta mol buka tamandi nyanta ka tamandi nyamin sai binami itandila laten wala ba itandila ko jano na keta even munni mene kala nal se wokacha se faham roke bake ma ne nijaay mu jee nga woon a seeti Baye Demba. Hmm, déedéet dama busy woon torop mënuma woon am chance pour dem foofu. nijaay fexeel nag nga seeti ko de xam nga ne ñëw na fi. mu ne daf la soxlaa gis torop torop. Hmm, dina fexeel nga seeti ko. dina try eh boy yow gaawal si ataaya bi waaye nga defal lifin def fa xorom polle ak pasti walda bu ko fàtte de. ataaya bi sax léegi tey mu fële de xorom polle bi mu ngi nii yaa ma xaar mu ngi baax nag su lifinee rek ma sukkur ma def waaye su ma ndox bi tàngul man damaa xiite booy dama bëgg a ndeewoo booy. ma dem ci tàngoor bi lii mbaa tàngaay bi ëppul. Ah, waaw waaw waaw maa ma try. booy jëlal li suñ booy. ah non dina baax. booy tur balaa ngaa lakk de. loolu de dina baax. booy jëlal kii bu nekk ci gannaaw bi. loolu dina baax loolu dina baax. booy su ma loxo bi. déedéet bu ko fa defal ndox. xaaral ñu defal ndox. def ndox nañ fa def diwlin. isil colgate. isil colgate. déedéet déedéet nañ use nen. eh Ibrahima kay jëlal ma nen yow defal Colgate fa def nañ. So we have just watched the scene again. Very interesting. We are thanking our actors again. They've done a good job out of out of out of out of this. I mean, people have a lot of stories, lot of traditions about burns and how to deal with burns. Um, and it is very important to know what is right. And again, we're going to talk about water first. That's the water there. And it's available everywhere. And uh, uh, uh, uh water is important in burns. In, in, fact, it is one of the single most important things. There are very few situations of burns, some forms of chemical burns, where you don't use water. But most, in fact, in the Gambia, I can tell you, if you use water, you have not made a mistake. And the first thing to do is to use water and not only clean it but irrigate it with water irrigate it with water for at least 10 minutes cool not not cold cold water from the fridge not hot water no just tap water clean room temperature water put the burn area under that water for about 10 minutes what is good about that what will it help you with the first thing that it will help you with is that it will clean the wound water cleans things and it will clean the wound any dirty material for instance this child was burnt with, uh, with, with, with, porridge that was being boiled uh, that porridge has sugar in it it has some uh, dirty material in it foreign body to the, to, the, to, the, to the body if you leave it like that and it dries on the wound it will encourage infection on the wound so you cleaning that wound will first clean off all dirty materials and all bacteria and uh, the other thing it does is to cool it. Now, how do we understand this? We understand this by understanding that the body is made up of layers. So you have a top layer made up of just some cells uh, called the epidermis. You have another layer. We don't want to go into the scientific details, but you have many, many, many layers. And what makes a burn serious? One of them is the depth of the bone. How deep is the bone? The other thing that makes a burn serious is where in the body are you burnt? If I am burnt on my face, it's different of if I am burnt on my thigh, which is not a visible area, uh, which doesn't have the eyes in there. Um, uh, it doesn't have any, any, any sensitive organs. So the place where you are burnt. And also um, your general condition. What is the general condition of the person who has? What is, is, it? A small baby? Is it an adult? Is it an elderly person? All those things make burns more serious. But one of the most important thing is the depth of the burn. How deep is this burn? And obviously the surface area, how, how much of the body is burned. But how deep is this burn? Now, if you are burnt with a hot thing, remember, if I heat this um, plastic, for instance, I heat this water and I keep it here, it will remain hot, isn't it? It will remain hot for a longer time. But if I pour water on it, it will cool off very quickly. So it is the same thing if I have a burn on my skin and I leave it like that, it will remain hot for a long time. And if it remains hot, that means that it is heating deeper and deeper. So the burn, instead of remaining on the surface, will go deeper and deeper and deeper. So if you put water there, you're cooling it off so that it remains on the surface. So that is another advantage of using water. So irrigate it with water. Wherever, if I am burnt on this hand now at home, whether it is with fire or is with water or with, uh, with something that is boiling, whatever it is, I will first of all just go under the tap, put my hand under the tap and keep it for 10 minutes there running water so that it cools off. That way, instead of having a deep burn, I will only have a superficial burn. And the reason why a deep burn is dangerous is that it is going to spoil nerves if it goes deep. Number two, it is going to take time to heal. Number three also is that when it heals finally, it will form a very big scar. It will form a very ugly scar. But if it is a superficial burn, when it heals, nobody will know you have, many of us have got burnt. And when you look at your skin now, there's no evidence that you were burnt because it was a superficial burn. Eh, so mbokk yi seetaan nañ eh, théâtre boobu noonu comme niñ ko waxee rek eh, gis ngeen lan la gars yi wane foofu noonu xale bi lakkana gaa ngee xuloo seet naka lañ koo fajee lan yoon lu ñoo def kii ne nañ def ndox kii ne déedéet nañ ci def diw kii ne déedéet nañ ci def nangam nit yi xamuñ exactly waaye lu ñoo waxati rek mooy ndox waxoon nañ fi ndox njëriñi ndox ndox mooy the first thing looy def su nit amee laka-laka nga raxas ko ak ndox du nga raxas ko rek ak ndox de nga def ko ci ron ndox ndox buy daw mu daw ci kawam lu mut lu mut lu mu bon bon fukki minute lan mooy njëriñi loolu noonu mooy ne laka-laka benn si lu tax muy gën a dangereux mu tax muy gën a bon mooy naka la duggee ci biir suñ suñ der bi ay léya la xaw ma naka la ñoo waxee nag léya ci wolof mooy ay place place euh, la der bi dafa am lu nekk ci kaw am lu nekk ci ronam am lu nekk ci ronam am ay mosul su fa nekk nga door a jot yax bi balaa ngaa jot yax bi ay léya léya ñoo fa nekk su nekkee nag lakka bi ci kaw rek la em moo gën a baax lakka boo xam ne dugg na ba ci biir ba ci fu fu nekk moo gën a baax der boo xam ne dem na ba ci yax bi su demee nag ba egg ci yax bi laka bu garaaw garaawa garaaw la soo léegi soo lakkee looy bugg a def mooy nga bañ a nga bañ mu sori ci biir ndox nag naka la laa dimbalee nga nga bañ mu sori si biir mooy lu ma leen a wax si nii rek léegi soo tàngaloon ndox bii nii def ko ci nga tàngal ndox bu tànga jir def ko ci biir satala bii nii nga bàyyi ko fii nii nga toog benn benn 10 minutes 20 nga ñëwaati dafaa tànga bi léegi du noonu waaye nag su ma su ma jëloon ndox bii nii léegi ma tàngal ko ma jël ndox di ko ci tuur di ko ci tuur ndox bu sedda di ko ci tuur balaa 2 minutes du tàngaati wala sax su ma jëloon kaasi kaasi suma tii bi def ko ci biir euh, siwo ndox ndox boobu noonu du tàngaati soo léegi tànga tànga boobu noonu nekk ci sa biir yaram bi su fa desee luy xew mooy ne lakka bi dafaa gën a dugg ci biir soo yow soo jëloon ndox nag def ko ci kawam 10 minutes fukki minutes di nga gis ne lakka-lakka bi du gën a sori ci biir lakka bi dafaa am ci kaw rek su emee ci kaw rek nag naka la laa dimbalee mooy ne kon lakka bi benn dina teel a wér ñaar su wéree doo jis benn màndarga ne afta weer ñaari weer ñetti weer doo gisati mandarga ne lakkoon na waaye su duggee ba ci biir a biir luy xew mooy lakka bi dina jafe wér mun naa gaañ ay naaf si biir ba nga xam ne léegi su nekkee loxo si loxo bi la loxo bi doo mën a tee yuus mun naa tax léegi nii su demee ba wér sax nga am fa liggéey bu rëy rëy bu ñaaw a ñaaw boo xam ne mu ngi foofu noonu kon ndox lu ama am solo lawaati ci lakka lakka bi nag amul ban façon ngi lakka su xale lakkoon dugga ci biir siwo ndox lakka ci biir ndox nga dem dëkk su nekkee yaa ngi am shawa lu ñoo ooyee shawa mooy nga fu nit yi dee sangoo nga dem def ko ci koroon shawa bi 10 minutes balaa ko yóbbu lopitaan kon dimbale nga xale boobu noonu soo dawoon sax yóbbu ko noonu lopitaan xëy na balaa moo égal lopitaan lakka bi gën a dugg ci biir gën ko indil problème waaye soo jëloon ndox rek si siwoo ndox bu seeda tuur ko ko laka bi euh, tàngaay bi wàññeeku di nga ko mën a dimbale su nekkee sa loxo la nga def ko ci ron pompe bi fukki minute balaa ngaa dem lopitaan ñu ceppatoo la yow dimbali nga sa boppa so loolu noonu tam beneen mbir la boo xam ne bu am important la ñu expliqué ko suñ déglukat yi ak suñ seetaankat yi mbaɗigol aliyettiyatarum min je teng doron wala ya tamdi ko doo ko alga doko dol ka fale fanga colgate keje wol mhm. be ka sotale mol ka colgate ke da courant ni ko colgate wala da courant ko ka wol be ke janotale wol be man fa soto donc ka min foten wolom jiyo kuma nata nyinato jio kumaya to bakele komi nga kacha kumasi minna jio kumaya lafta pour mole wala faham ako komi ni jio fajindi komi nyinta salo felete ye jio fajindi yake je ni mang jiyo lafa ji suma lafa kan abe tola kandiri ne baje lafa ni na ta janibe bulo bulo la kono ni ni tay tasalo madron abe kandiri ne ako wol foten komi ning hadama dingo janita mari dindingo janita wara ke ba fango janita ye pompo yele ye bulo jontor je fo montoro miniti tang woka jano nyin um, uh, um, eh, jano nyin talale e ka jale fon balo be jane la nyamin abe talalale le balo a ka fale ko bala fatwa ye la la sabale soto folo nyin wolom nyin bala fatoti ye do soto ye sabanjango soto fo janning ibe futala fasoto anin kulo ako bari ning mo i janita ye jiyota ya kuni wala folo janning aɓe futala la fula jangoto o batar lele ko janoñing sumayata wara dindingo janita janning i basi kala naye bori kat lopitano waling ya nin shawa bebulu walam shawa nin ko shawa walam keku mina wara nin pano bebulu ji pano ye mari ye bulo bula je janning eh, ah, ah, montoro miniti tan wara ɓe futala lopitan ba ɓe kuudo kela o batar la janoñing a ba dimo talala le jano kañandila nka wala fo ten jiyo kumma mu ñinati a batele pour mol ye ni ni janita janibe kuwa kukela doron jiyo bije a soto be sone yaring bulu banko kan sain yewo ta doron ye jano nyin ku fo janin jano be lafala wa janni janoɓe futala saba jagota ako na futata natata fo janomi yalon ko a dinkata jannaɓe futala balo fato eh, saba jagoto fo aɓe futala fasol to mbataɓe futala kuloto to woɓe melale bar nin gam fango makoye ga jiyota ga keje ibajela ko ako, ako ku sabaleɓe je aɓe makoye la pour a, a kendaya e tariya aɓe makoye la pour isaje na kendayata kana uh, ñimmandarga manel jem balo bala bar nin ga wotuje doron jannin aɓe kendayala ka fansun time oleta na futata bala fata saba jagoto oba fansun time le tala adu nin akende ata fanan mbajala ko bulol ka ibuka ja nin mo janita a abulo ka nyim faso faso be ka muta nyo bala ni ya mari jibe fan e ka lon ka janita le bar nin atara jiyo bije ye fan ma koy imbajala ko hanni tata fo kari saba kari nani monen ne fan buka lon ko e janita le jio ko maya mo nyinati pour mol sa faham nin jano keta drom janibe lopitano wala nambata janibe buru buru uh, coming colgate dol fan wal ka um, buru tiol leta mbata ye newspaper fan jani e ka wol be mo si jano lon ka wol be jola pitano tole janim ba wokela doron jio mi yalon ka sutiyatan na nga ta doron nga ku pour ngam fanga ma koy docteur mbokk mu ngi melni ni time eh, mu ngi ñoo mu ngi ñoo mu ngi ñoo jambu léegi ni eh, waxtaan bi neex na lool amoon na lu bëri loo xam ne di kon di ne ci mën a wax waaye lu ñëw dig nit yi mooy ne wax nañ ñu xabaar bu neex léegi nii ne léegi tey programme bi ñu mun koo indi live ba nga xam ne dañuy ubbi line yi so di nga gis ne scénario yi nii yëpp ñu doon waxtaane am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngay laajte léegi dañ bugg a laajte te amuñ naka la ñoo laajtee dinañ indiwaate yi nii yëpp ndanka ndanka ñu waxtaan si gën a mun a xuus si biir gën a mun a waxtaane lii nii bi xam ne si dinañ gën a mun a am am xabaar si loolu so lu maa def rek mooy dinaa bàyyi Mariama euh, translate lii nii leen mu tàggu nit yi den man tam ma tàggu leen ba beneen yoon incha allah. baringol um, watu banta kachabe diaring angalo mol be nyinin kar jamal sotola ila fitanga mol nyinin kamina kachabe diaring nin kombe continue la drong apta bannano bari akamin uh, fote ye kibar di male din ko saying nyato do manding dorong nim programme keta mol be kumandir wo kala no jele kanyinin karo ke la fitaka minil nyinin ka ngalo benyin nyin min kachakan mol ye londo soto jele bar dol be la filaka nyinin karo andi akuwa kono bari nin uh, ala sonta inshallah programme minil kanadrom be laino yele la no mol yele ikan kumandi ni e ka ka ni ka la jata kende mba fola le ala baraka fo lokun koten Thank you very much uh, for tuning in and we will see you next week for more interesting discussions and you can look at these things again very simple things but we can use them to save lives mbokk ñu ngi fii ba beneen dimanche incha allah ñu ñëwaati ak yéen waxtaan ak yéen ngeen seetaati rek bagage yi nga xam ne wane nañ ko fii nii bagage yu simple la yoo xam ne ku nekk mun na ko amee feneen waaye dina am situation yoo xam ne di nga ci mun a dimbalee nit euh, di nga ci mun a euh, euh, wan nit di nga ci mun a di nga ci mun a sowee nit soo ñu leen a tàggu beneen dimanche incha allah. This is uh, Dr. Abubakar Jah.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 program kutule natale e ka fomi ye health link health link mu program ultimi ya lonko ning molbe kachala jata kende ya karola health link every tuesday at 7 p.m on qtv repeats on sunday at 6 p.m health link the platform that puts your health and well-being first the health clinic for healthy choices